japp naa ne waxul deug barki cheikhou tidiane barki khalifa ababakar Si xale bu jigen ba jour ba muy dem fofu man bastoun lawo wo man duma wo sama naula diko enregistrer man ba may siw bastoun siwul bara bara man bastoun bimu mm-hmm. bi mu siw man la way mm-hmm. yow mi bi nga beugé siw ñaata yon nga def sama duo sama video bara ñaata yon munoo mm-hmm. ko konté bara bëri na ëpp na du deug bas cuun yaa fi gën a yaa fi njëkk a teg a bon. bas saa góor Baba Yacine saa góor alpha mi ci balakoos mu baax mi bas liggéey rek la xam ak bëgg boppam ak fonk ay moroomam. bas cuun mhm. du ma wax ak sama benn nawla di ko arisel du mukk doo ko dégg. njaay eh, Fatou sax bis boobu nekk fa woon. waaw loolu laa dégg encore Fatou eh, xoolal mhm. baaram li ma wax man. boo ko gëmee yaa xam boo gëmul yaa xam dama ne la baara jour boobu bas cuun. est-ce que est xale bi nobul bas ba léegi booy yow yow déglul ma wax la gis nga booy bi tambaambalukat la booy la boo xamante ni gelu gaay la woon ku jokku kat ku jekku tëddee ku jekku tëddee xanaa xamoo ni baara loo xamul ci coow li xale bi dañ ko biiraloon bas cuun. moo ko doon jàppale booba bas cuun amagul dara loolu la wax. dama ne la bas cuun bas cuun gelu kattukaay la defon ndaw si mom momu di jaara kattukaay la won hmm. yaa ngi dégg bas xam nga ne jaara mom modde mu dof momu lu ko di doye yow dem sa dom rek lu mu jotee ñu lay dóor baara góor bu lay door du la door si kanam wala mu door si duggu ginaaw num lay dóoree ci ay ñaari te sunu loxo wax bu dofé nit ñi ño wara wër nit ñi ño wara am xel xalé bi Fatou Ndiaye moo koy déranger ndax faatu njaay xale la bu yam fi mu war a yam te xanaa xamoo yow man maa lay wax fii loo xamante ni ñu bëri dañoo foog ni Fatou Ndiaye ñag yi dañ koy katt wala nigérien yi dañ koy katt Fatou Ndiaye kooy masul dugg ci lëf faatu Fatou Ndiaye dafa am ndaw te bis buñ ko ah, takkee man de Fatou moom wax dëgg yàlla man mënuma ko non Fatou dafa am ndaw de wax dëgg yàlla Fatou dafa am ndaw de maanaam Fatou Ndiaye itam Ndiaye ci xam dafa am non déggoo li ma la man li ma dama ci am preuve Fatou ba nga daanu wala mu jël sa bop koy bi tek ci watu bun bi ba nga daanu fofu mais doko duggal ci data bi Fatou dafa am ndaw mom dina la fowé ba nga yëg sa bop mais dula la jox data bi Fatou Ndiaye dalay bégal ba nga contane wayé do kat Fatou dafa am ndaw de jigen ju bax la te bu ko takké dina dina am ndaw lolou mom maa wax mom do dugal. kon ñoom ñaar yow gëm nga ne dañoo nekk Fatou ndjay ak ba ah lu ci mëna am dal Fatou tanté wul ak kenn corps à corps waaw lolu mom mako mëna sédé man nga xale bi dama ko baatee sax. Fatou mom Fatou mom bañu mom légui jaara concentré wul ci jaara. jaara moy ka bi. jaara ah. mo bëgg tejj lu Bas tuun jaara mo bëgg wax Bas tuun day dooraate ta Bas tuun dafa yaru. bas cuunta koo takkoon jaara ta mbaambalukat la woon buy daan nekk ci raada baar la woon ku siw lay bañ a gis ku siw lay bañ a gis ñi siw ñëpp ko katt ñoom hélas kayta katt nañ ko ñoom ñoom ñoom kii ah ki dëkk Grand Dakar bandi boobu te mu rasaw katt na ko nu mu tuddati yow xaadim tarba mbaay katt na ko ba pare góor mbaay bu yaa mooy booy boobu mooy booy boobu xew diggu ndakaaru góor mbaay moo ko woy bu yaraax katt na ko momoo Mama Dieng kattan na ko ñu ko kattan dañoo bëri léegi nag. loolu Bastoun dug hmm. engagé moom di ko jël soxna moom na dem jéem uti feneen te bàyyi Bastoun mu defar addinaam doom jooju erreur la woon ndax doomu orzo la ko ci farata ak sunna Muhammad doom ji Bastoun da ko biiraloon te loolu erreur dong la erreur dong la parce que moom moo daan dem doom la Bastoun yi la fa am ñaari doom non biñ ko kattee mu biir ba ñu may ko ba ñu may ko Bass ci la ko Bass Thioung biiralaat ci biir sey bi doom bi juddoo ci kër ñoom Bass boobu doomu yoon la waaye doom ji mu ko doon doxaanee di ko katte ci ay casino Cap Vert yooyu ak ay ak ay fële euh, Queen X5 ñu ngi doon kattee la fële euh, ci ci boîte de nuit ci suufu baas yi yooyu doom jooju maanaam ci après avant sëy bi la xale bi bu doon jigéen ju baax la balaa muy jël tata bi di ko jox Bass mu koy biiral day bay ba bastion takko mais da doon genn ak bas ay far rek faram la won muy nangu bas diko di kat ba am doom nonu kon mo lay wan ni jaara du nit ku bax jaara da daan joxe data bi sénégalais wax deug man may wax katu deug bi motax man bëgguñu ma luy problème bi legi léegi dur bi amul lutax jaara lutax jaara topat ci ko bas manam bidem demat ci kër gi ak yoy lo japp ne mo waral yow parce que bastoun xana xamoo tuuti waayam boobu koy bu ngand la yor dégg naa man ay exegelu bastoun wax nañ ma ko nee na ma bas ngandi dambal la yor dambalu bastoun a gën a rëy bu bartaza dégg naa xam lu muy expliqué tago yi dañoo bëgg koy bu rëy baara xanaa moo bas boo ko xoolee mu taxaw noonu dafa tuuti amul yaram te ñu amul yaram ñi ay koyu mag la ñuy yor dama koy xool ci sama bopp rek comprendre nga tabas bas jur maag moom ñoo tolloo taay mais nag 42 lay sol ci dal ta man 40 45 lay sol man. kon xam nga ni kon bu ko uppele dal don la ko uppele koy ma ka gëna a touti rek. lolou moy problème bi. bara da nga waru déet man kay man wax dëgg yalla man soko man wax deug yalla man man. ah man kat boobu la gisee nga sëngeen ni da ngay mel na nga jaaxle. kon yow li yëgoo ko li lay wax ni yow xamoko won woon xanaa xamuloo baara man na man man suma ma laayful sax maa ngi gitu, topp kaa damay wote ya, di laajte di enquête billahi man lima xam senegal dafa beuri de xanaa xamoo pap Cheikh Diallo gor jigen la mais xam nga mom tooñu ma duggul sama 18 mom borom ñaari tuli la pap Cheikh Diallo tan pap Cheikh Diallo borom ñaari tur la waaw waxuma ma waxuma loolu man laajuma la loolu. damay wax ma ne yow Balthazar. Pape Cheikh dañ koy juutal de Balthazar. moo baara maa ngi gis nit boo xamante ni sama biir kër nii ki moo ko soloon sa xarit bi Viviane gis naa la ngay ànd moom jamono ji Viviane Ndour bu ngeen dajawee nee na nee ko keroog ba muy sànni bin binam ca Val d'Or man maa ko capté woon bin bin baa ngi sama kër ba léegi mën naa la ko woon léegi baara taal sama caméra. soo billaay ko Balte Baltazar Baltazar so Bastion mën na koo ëpp John Baltazar gis nga Baltazar bu baax. yow yow comprendre loo xanaa xamoo kooyu Baltazar ci boppam rëyul yow xanaa gisoo dambalu ci Thiam rëy dambal maanaam bul xeeb Bastion maanaam genre ñooñu nga gis dañoo tuuti ci kaw tuuti yaram ba noppi Bastion amul biir. mais yow Bas du sa Bas du sa sama waay la ba sama xarit la Bass amul biir gisoo biir bi dafa am abdominaux moytul ma góor bu am abdominaux dambal ya day rëy yow yow koo xamante ne da nga jàpp jigéen fase ko mu topp la rek bañ la bàyyi dambal bu rëy rek la ko toppee lan mooy problème bi mais na bàyyi doomu jàmbur ji dafa nekk ci carrière Bass Thioung jamono jii xoolal fu Waly Seck te tëgg mu fees Bass bu fa tëggee day fees te Bass xale xale jigéen dañ ko jox bopp xam nga léegi ban woy la génnee gisoo woy bu neex bu mu génnee da nga naan tak tak di yëngal say taat ci ginnaaw gisoo ko ni ko xale yi di feccee. waaw ah, bas bas moom ambiance kat la moom. eh bas tuun dafa xew si jamono c'est pas les marabouts c'est Dieu. mais man mais man jàpp ma ne Fatou Ndiaye day génn ak bas man da jàpp ma man dama jàpp ne dañoo collaboration liggéey rek man pour man dañuy liggéey mais jàpp ma ñoom ñaar dañoo nekk de. non parce que yow da nga bëgg doxaan Fatou Ndiaye gis dégg naa la sa vidéo nga naan Fatou Ndiaye bu fekkee problème bi daan rara garaaw mën ngaa ñëw ci man yow bara yow sa ñoor gi sax mënoo ko takk an sa jabar ji nga daan wone tamu ñuuloon ñaaw rek daan muuru ibaadu gëj naa koo gis nga ànd ak moom da ngeen tas fase naa ko hmm. ah, ah, ah. kon instant bi nii amoo jabar te mu ñaaw nga wax mais nga ne dafa te mu ñaaw non kooku kay rafetul woon nag baara Sénégal yëpp doon na la ñaawal mais comme yow sama boy nga jox nga ma cër ma defal video di ma wax lu ñaaw motax suma ci won wax mais sa jabar joju mom rafetul won comme fassé nga ko rek baxna jabar ju ñaaw mom bu la ko yalla denké bu gën xulo wé xulo bu ndaw rek téggalal ndayam may ko bat ma genn ci biti ay safa non mais yewu suma yow jakkal jakal li kanam yu baxul jakkal lok man jakkal lok man ama sa jabar dafa ñaaw soko yow ya may wax li man ah ya ko woné dé ya ko woné bo bon sa jabar ken gis ko duma la sédal ñaaway bi mais lima gis man kima gis koku dafa ñaaw bu rafet woon so so ma sax man non man man man man ay doon nga di leen ci jàppale non maanaam déggoo ma ma def ci vidéo wax ko parce que dama la respecté yaa ngi dégg te yaa ma ci dugal ci wax ji yaa ma laaj ma wax la sama avis yow nag mën naa rafet ci yow ndax boo nobee jigéen lu mu ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw bu melon ni faatu lawbe yow ki nga nopp moo lay dàqal ci àddina comprendre yow yaa mën a gis rafetaayam waaye rafetul de ba pare dafa demoo de yére yu mu doon sol daawul ànd day solu mel ni ci ngës bu sol yére taxaw ma ni waa baara moom fu mu jëlee kii influenceur bu toll ni yow doo wut xale bu rafet booy àndal vidéo yow kooku nga kooku nga doon àndal baara barki Seydina Muhammad waxuma dara waaye muuraayam rek mel ni xalimatu Zara doo man de yow ni nga koy xoolee yow sax ba ma la àndal na ma yow man koku manuma yeungal pourtant Iba Iba do la ni gisuma jigen Iba du la ni pourtant. ah moo xamal muuraayam man day comme bay nga ko daal santal yalla yow. outal xale bu mol sol bayu bax teumbal ay wenam waw kooku nga xamanteni bu takke ci tay ngoos day melni ko fit bi recc melni ko am febru deug bara duggal ci benen ka bala ngay joy ay ca ah. duggal ci benn cas euh, non non léegi kay euh, naa ne ñu ngi ci terminus bi ñu ngi ci terminus bi li ñuy wax li ñuy fu rek mooy mooy yow kay nañ nañ nañ tëjee ci kaawu bas bi kay doy na sëkk ak parce que même kii Ndiaye gars yi ma naan kii euh, man artiste bi avant muy génnaan nii man xam nga niru ma ko xaw ma ko man ci génnaatam bi laa ko doon gisee. góor gi Ndiaye. góor gi Ndiaye moom maa jël sama ah. initiative bu bopp wax ci moom maam góor gi Ndiaye. mu ngi nii xaaral ma dil la ko man nu ma ko defee sax. xamatuma ko mais est ce que bettuñ ko filmer ko. nga foog ne góor gi njaay man dama jàpp ne est ce que moom laa lay seetal nii xaaral rek xoolal mu ngi nii avant ak après zoom ma def ma grand plat léegi léegi bëgg naa nga suma sumal zoomal góor gi njaay zoom ko rek lii moom mënuma cee ñàkk bañ a wax. waaw. lii foo ma wax ci lii moom mënuma cee ñàkk bañ a wax. oh. léegi yow Soko. oh. Soko. waaw. fan la nekkoon moom fan la nekkoon avant muy ñëwaat nii Sénégal. waaye kii kay cootu ndeyam rek. kii gën a xam man daal daf ma nduróog ku jógee Abidjan. xool naa ko ba ci biir mu may nduróog ku jógee Gabon. ma xoolaat góor gi Njaay ba mu yàgg mu nduróo ñoo ñooñu doon doon wax saa yaata yaatoo. Saya tayo to marsude saya yaataa yaatoo ma xoolaat ba mu di jox ñu dekk dekk bartaza yow gisoo jaara ko bi mu tak yow ko bi gisoo ko li sa yaay. waaw loolu ma jaaxal jaara. congolonko ko yaa ngi may boy mooy ko takki jaaro gor gor guni ne nga yor say. dama yaa may dégg. waaw ki dafa ñaka fayda. mané nga jàpp ne maanaam ko filmé niñ ko filmé. est-ce que affaire bi xeesal la wala ñu ko filmé la. xoolal Baara sama benn waay daf ma ko wax mu ni ma est-ce que nekkul ni xam nga kuy dem télévision dañ lay maquillage man mii sax dem naa télé ñu maquillage ma. comprendre mais maquillage ah, bu discret lañ déglul rek maquillage bu discret lañ lay maquillage waaye du ñu maquillage say loxo du ñu maquillage sa dënn kii koo yi sax dafa xonk léegi dafa changé maanaam dama ragal ni est-ce que jaayul yaramam ci ay sacrifice parce que dafa mel ni ruwam la jaay moom te kii baara est-ce xam nga ni li gën a doy waar ci cas mooy mesure parti maanaam deux mille sept cent personnes yii di la seetaan mën naa ko waat ni deux mille personnes yëpp xamuñu ko sept cent yi rek ñoo ko xam mooy ñi juddu ay après soixante dix huit ni juddu ay quatre vingt ah waaye xale deux mille yi fi nekk ci laay bi xamuñu kii mooy kan kii mooy maam góor gi Njaay doomu Lebu la. dëkk Tëngéej. man man xanaa xamoon ne barke Serigne Touba Mbacke. kii xaw ma ko woon Soko. waaye doo ma bàyyi baara yow yow maanaam danga nga teel a sax sikkim nii mais booy nga maa ngi rappelé wu ay temps grand Soko nga ma daan woowee ñëwaatam. kii ñëwaatam maanaam ni mu tourné waatee ay chanson daan naa ko déglu. non kii dafa a woy mais xaw ji moo woy sax son yooyu noonu. dafa mën a woy moo fi woyoon léeg-léeg ñu la lay gënoon. xamoon nga ko xamoon nga ko yow comme nga xamee artistes yi yow Senghor bi muy dee deewee France ñu suul ko sama watu koñ belleer après yaraax fii la ma fekk bi du juuf di jël réew mi fii la ma fekk. waaw xamoon nga artiste waaye yow déggoo li ma la sama xarit la maa ngi numéro barki sama mag la maa ngi numéro barki salaatul fatiha bu fekkee daaw ma déggante moom téléphone lu may wut sama àdduna yàlla bu ma ko am man baara ba may xew dafa yàgg baara danga maa fàtte xanaa. man may magi démb ya magi démb yaa ngi magi démb yaa ngi nii baara. waaw loo jàpp ne moo waral alquraanu karim kii bëgg bës ak bëgg xewaat bëgg siwaat forcé boppam sénégalais yi gën nañoo wax ci moom maam góor gi Njaay kenn xamee wu ko sol lunette sax kii dafa ñuul ba waaye yow kii moo gën a ñuul këriñ maam góor gi Njaay amul ku ko dàqa way ci xeetu lébu kii moo woy Matar si la xari Jóob kii moo woy bëgg sàmba si ni jaraaf waaye woy na ba mu neex ko nag mu taxaw ca woy wa naan léeg-léeg ñuula lay gënal waaye léeg-léeg xeesa lay gënal léeg lay gënal waaye léeg-léeg xeesa lay gënal yàgg na bëgg xeesal doomeraam la xeesal mi yàgg na ko woy boobu defagu ko mbay tamit mbay tamit baa mbay mere naa ko trop parce que mbay moo filmé defe naa waa xoolal baara mbay deful dara gis nga kii ba muy dugg ci hmm. aar mbay ju judduwul mbay deful dara Viviane Ndour mii. sa yaay waaw mais déglu baara non non moo bëgg loolu mbay day maye buzz mbay da dimbali lii la bëggoon ñuy coow ci moom di wax ci moom mu mën a génne kilibam nit ñi déglu ko nee na nag woyatul musique traditionnelle dafay woy ay woyu xeet. woy yoo xam ne da ko jéggaane ay kenn xamatul lu muy woy te ku mënoon a woy la kii kii kii dafa kii wayli wayli la baara yow xamoo kii boo moytuwul ci 2000 nga juddu parce que yow nee nga xamoo ko comme xamoo ko dangay noppi man ma koo xam bi muy xew ma koy déglu mu am sama numéro ma am numéro ñu yàgg waxtaan vocalante barke salaatul fatiha diggante téléphone maam góor gi Njaay man la Sokono stress borom Barcelone alias Sokola Tito Diop. masa aje sama tur tay def ko soko no stress waye man la to job bi nga dan way diko ko diko waxal lu bax man mii la sarak mais bet nga ma grand yow li ci nigerien yi lañ ko xamé grand li nga def ni toutel nga askanu lebu toutel nga manam kullu ku bok ci deretu lebu lebu manam lebu yi tamen man war nañu xolaat sen bop ah, sama mbok lebu yi barki de mondjay amon nyari na ñaari goor ci hmm. lébu yoo xamante dañ doon kenn ki atuman la tuddu keneen ki fatna tur bi benn paa di doxaan benn xale bu ndaw bu ne ci tiktok bi atuman xale bu tuuti la mu ngi ci tiktok bi dafay def affaire u ndëpp moo doon katanteeg benn paa audio yi keroog ba ma ko tegee fii ñëpp daanu ay rab maanaam kii daf ma nduróog homosexuel sax daf ma nduróog kuy juutu léegi grand bi grand nga baal ma nag mais ni nga jongomewee temps yi vraiment vraiment yow ma nga gën a nduróol ka jantal meen góor yàlla muli, lii génnal ci li nga nekk nga jàpp sa yaram bi diw ko ak ñi ba mu fees nii xaw crème lumière ngay diwoo xaw trois fleurs ngay diwoo xaw ma misel ngay diwoo dafa xeesal xeesal ba xeesal tànk yi boo yaram bi dafa weex tàll te moom dafa ñuuloon kii xanaa koy jaay diw yow Fatou Laobé mi nga xamante ne dafa diwu diwu diwu ba bàyyi xeesal mel ni golo boo xoolee ci Fatou be nga xam ni jigéen moomul diw waxuma laa góor waay waaye grand bi dañ ko war a tëj kaso waay barki Seydina Mohamed Sénégal dëkku diine la affaire góor jigéen yi mooy lan. bi bi ma ko bi ma ko gisee dama ne filtre la parce que. parce que filtre yi ñun filtre yi ñu utiliser des fois nga laal ci filtre boo xam ne da weex tàll est-ce que du filtre yi. yow mën a duul nag moo la yàq nga naan filtre fii ana filtre xoolaatal lii xoolaatal lii ana filtre fii fa la jaar ci yaram bi ngay defar wax ji naan filtre kii dafa laal filtre xoolal lii xoolal lii xoolal lii a congolon ko bi mu takk filtre la yow jaaro bi nag la moo tax nekkul ci beneen nopp bi benn nopp bi la bën a def ci jaaro di sol ay keppal ma kii ay grand mbubb la daan sol kii ay sabadoor la daan sol léegi nag ay oo lay sol ay baa ay keppalma grand yow too sama grand léegi joxatuma la cër parce que da nga fayda rus naa naan grand bi sax xam naa ko. billaahi te yow yàgg nañ waxtaan nga may conseil ci àddina lu baax li ma doon conseil lan moo tax yow nga dugg ci affaire góor jigéen yi xoola baat bi yow. mais ki di melni ni Adja Xaar Mbay ma jaga borom karo yalla nen karo ay way ga jay gay de ah xar bay ma jaga lamay jox jamono bi senegal demé coupe du monde l'an 2000 ba li dafa ruslu ta amna ñaari jabar kat. ayca soko ñaari jabar la am ñaari jabar bara. actualité kii amna na ñaari jabar bara. Li, dafa ñaaw. ndaysan doomu lebu cham kon kon daal di woon nag xoolal yow xoolal lèvres yi yow xoolal lèvres yi oui sama day lèvres yi ngay jël baara jëlal ma lèvres yi rosa lèvres. rosa ah, ah. lèvre xoolal fleur yi nekk ci baat bi. baara da xool yére bi. yére bi boo yàlla mu ko sol ah kon baax na baax na noppi naa. waaw noppi na ma sonn. léegi ma sonn léegi. léegi résumé nañ actualité semaine yi euh, doy na léegi nañ wax ci événement Wally bi naka nga lan moo ci sa taxawaay. waaw arena accord arena Latir Diop dëggeen Baye Kula Faali dëggeen waaw daagu daagu dëggeen loolu àddinaa koy waajal man Sokono stress borom tubaar tubaarkàlla macha allah <clears throat> borom Sokodo saay saay xam nga ni bu wootee damay sawaat dem ca loolu. manga hotel accord arena ba adidas kuma fa deug na ma massa ma ngi ci bir de diko wajal lu reuy nak ndax soko say say bi deuxième partie bi fa la ko mariasine fasiyene jouer ki nga xamanteni tubarkalla ma sha Allah sal yu magi ci aduna bi yeb la fessal segam sidi job mo nangou di wajal be di wajal arena adidas man damay dem sidi job day dem wel na wali nangu na ni wali moy magam and na ak publicité bi ñom demba gisé manam adina koy wajal li yalla buñ mako kenn netali kuma fa deug na ma mas adida wali dina ko deub deub deub deub deub deub ba mu mok xolal programme bu mak sa buñ ci jubé man duma tit damay aisé wu heure bu ma amé temps la ci def publicité sax duma ci sono di wax ndax waji da nexa andal ndax dafa liggéey tarbiya ndayam mama jaaga ba mu ñaanal ko wali balago sek tarbiya bayam ba mu nangul ko day sa xex ak adamo dal bo demé han li yak xel non yow xana xamo yow bara man duma xex sax man bu weso sama lamiñ ni lepp luma metti sama lamiñ la koy xexé man duma songo boma songé sax ma arrière wo police man duguma ci ay xex de xana nga bett ma di xex ak man par force mais bu ma la teelee gis moom bu ma la teelee gis baara doo ma gis bañu ma ci ba daw <laughs> man xeex laay bañ baara damaa jantal yow gisoo sama kanam gi dama naay see sénégalais yi soxor lañ def ak bon ak ñaan yàkkamte nañ songoog man ba ba ñaawal ma utal ma cicatrice su kanam may nduroog bàndi nag su boobaa ku may nopp man de xoolal boo may dóor sax damay protéger sama kanam sénégalais moo soxor man la door ni door la ci diggu ginaaw nga tërgal grawul mais sa R4 la ñuy bëgg dajji ta xam nga yow bo solé ay lunette ñu dajji sa jëbi xam nga lool rafetul quoi xam nga man sama yaram bi du pour xex de man damay sangu ay shampoing yu cher laay sangoo diwu tuuru ay diwu dara donc gaay yi suñu tata gumba gaaw la mu ngi tata gumba gaaw la mu ngi wajal 40 ans de carrière man damay histoire ah. rek diwaanu Sénégal su ko defee ngeen wara a fi ci France Euh, euh, euh, ci nee Soko waa tim Soko kon waajal leen bu baax Soko nee na événement bi moom ci kàttanu suñu borom. bu ñuy waajal noonu. Soko daa mel ni gëj ngaa génn génn foofu de yow événement yi xew ci Europe bi gëj ngaa génn Espagne de. yéen da ngeen ñëw ba Europe ji ta tambaambaru taman dama nekk ci place di liggéey. loolay problème bi ne ci contrat te yéen ay kat ngeen yow dangay toog ba ngoon jot nga gàddu sa saak.